saraax la ñuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fa Abdou Bakhoum may wax ci combat Ama Baldé Modou Lo moom la mu xamle mooy bile combat dafa war a taxaw watta nax saay bile combat royal mooy combat bi amateur yépp doon xaar muy waa Parcelles di waa Pikine ñoom ñépp ku ci nekk yàkkamti woon nga ñëwee combat bi suba la te combat boobee dañ cee déggoon ñaari kàddu yu wute ci diggante Rayba ak ki nga xamante ne ni mooy Willy Nicolay Rayba dafa xamle woon am tànk Luc Nicolay ngi ci kaso bi Willy ne ko loolu mën naa nekk même bu papaam Luc Nicolay nekkee ci kaso bi taxawal ko kàddu yooyee ci la Abdou walaay ay waxam laa gën gëm ne ay waxi raay ba bile combat di combat royal sax gën a dinaa compliqué ndax feebar bi bile combat ñi ko séentu woon ren nañ ko xaare déwén buñ bañee seen yaakaar tas keneen ka yaakaaram nar tas ci saison bi mooy Malick Niang bi saison bi ubbeeg tey ñaari mbër la tàllal loxo ñaar ñooñu la bëggoon laaleel muy rëg-rëg di tafaatin kum ci amoon jël depuis ba ko Ama Baldé daanee en 2014 ba léegi moom Malick Niang adversaire da koy laajee ñu jox ko ko moom it mu nga ca leneen le journal ba xamle foofu mooy tafaatin bañ na Malick Niang waaye nekkul ci dara moom tafaatin ci kaabu critique képp la nekk am na problème adversaire waaye ci saison blanche la jëm moom gannaaw ba combat mag Ama Baldé avorté ba léegi amaatagul adversaire bu dëgër amateur ñooy wax digganteem ak Gris Bordeaux waaye promoteur sooboogu ca moom ca situation ba mu nekk gisagul promoteur bu ko ca mën a génne situation fekki ministre bi daal ko yóbbu seenu ndimbal délégation ba Moustapha Guèye la woon Birahim Ndiaye Amadou Kati Diop ak Ibrahima Sarr alias Ibou Ndaba ñoom yëkkati nañ seenum ndimbal jébbal ko ministre bi jàpp ci xeex gi ñuy xeex covid bu ñu jàllee ci lit sans frappe dañ fay fekk Ibou Ndiaye óbbali ma journal ba dellu siwaat ci parcours moom la journal ba xam le mooy juróom benn final jot na koo bëri ñetti final la ca gagné boo xaymaa lim ci am lépp a fës ci etu